moi en tant que parlementaire et membre de l'APR et du Benno Bokk Yaakaar mon intime conviction mooy Amadou Ba n'est pas de près ou de loin ak luy waa PDS di wax ñun suñ candidat dafa set wicc cest à yi ñuy suspicion yi ñuy teg ci kawam pour yàq der loolu amul ñun loolu lañ gëm te loolu moo am maintenant nag ñi ko teg ci ndodam ñoom lañ wax ne nañu indi preuve yi. indi leen preuve yi sénégalais yi gis boo leen ko indiwul tamit dinañ wax sénégalais yi ne li ngeen def nii yëpp da ngeen doon politique amul benn preuve contre notre candidat. beneen stratégie la Birame moi je pense. ñun du ñu bàyyi suñu candidat nag ñu koy. kii ci place publique bi ça moom ko duñ ko nangu parce que parce que parce que le président de la république xam na amadu Ba yàgg na liggéey ak moom tànn ko par hasard te Amadou Ba xam na ñi nekk ci ginnaawam di liggéey pour sa victoire te ñu nekk ci depuis le début am lu ñu ciy liggéey ba suba ba léegi may wax ñu ngi ci terrain bi di liggéey am ñu bugg a jóg yàqu parce que ñun bu ñu setalul deru Amadou Ba ci lii demain on gagne les élections le conseil constitutionnel programme les résultats. mais ñi waxoon lii. dañ dañ même fekk bu ñu ko vérifié dañ daan waxoon nañ ko de toute façon affaire dafa mos a takk suuf. Hmm. xajamal suñu victoire comme on dit. mais loolu duñ ko nangu monsieur Camara loolu duñ ko nangu. Okay. c'est ça aussi c'est ça aussi l'intérêt de Benno Bokk Yaakaar ouais. à ce que les choses soient clarifiées on ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale mm. nous autres députés de Benno voici notre intérêt à ce que la commission soit mise sur, mise sur pied mm. ça nous permet d'être lavé à grande eau